إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم jërëjëf Serigne Touba jaarama Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew ci ay bërëb yu fasantikoo ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq te di leen baal àq di xamal ne nag ñoo ngi fii ci Daaru Minaan tey jii di alxemes juróom-benn fan ci weeru juillet atum ci ndigalu li nga xam ne ni bàyyi ko na ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké jëwriñi Xadim Rasoul jëm ci am Amdi fal moom Serigne Modou Mbenda jëwriñi maam Cheikh Ibrahima Fall ndigal nag di leen lu dul bisub zikru la boo xam ne nii sëriñ bi ni mu ko defee woon daaw jéeg noonu la ko yeesalaat ren ji mu nekk bis boo xam ne nii lu tolloog fukki waxtu ak ñaar dañu fas yéene saxal baatub laa ilaha illallah baatub laa ilaha illallah nag buñ ko déggee ci zikr xel yëpp day daal di dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall loolu moo tax nag xam ngeen ne bi juróom-ñetti waxtu jotee ci suba gi ci lañ ko daal di tàmbali ci biir ci ay sàppe yu fasanti waaye li ci gën a yéeme benn sàppe dong la doon maanaam benn dëbbe yenn dëbbekat dong la doon waaye fu nit nekk ci sàppe ci biir kër gi ba ba li wër jumaa ji ci ñoom ngay daal di euh, euh, jokku mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne ni lan mooy ñaareelu yoon bi sëriñ bi daal di koy sant ñi nga xam ne ñoo di Baye Fall yi loolu moo tax nag ci ndigalu xalif bi mboolem njabootu moom Cheikh Ibrahima Fall yi teew nañu fasanti ko ci ay wuntu kër yu yaatu yaatu ak cheikh si ñi ñëw jàpp ci liggéey bi ñi nekk ci zikr bi ñi nekk ci bernde yi ñi nekk ci kaaraanga gi loolu lépp nag ñu koy dund fii ci Touba Daaru Minnan mu war a dem nag ba juróom-ñetti waxtu ci ngoon gi mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne nii nii ngeen ko gisee nii ci bunt kër bi ci biir kër gi mu ngi fees dell kilifa yi ñu ngi ci biir Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu ngi ci biir waaye liggéey bi itam ñu nos ko nos bu am solo boo xam ne nii ci wàllum xarala ak tas xabaar mbooleem jumtukaay yi nga xam ne nii góor yàlla yi yëngu ci yoonu murit te nekk ci wàllum communication multimédia andi nañ seen i jumtukaay andi nañ seen xam-xam andi nañ seen i jëmm ngir fas yéene boole seen bopp def ko benn liggéey bi yaatu ndax loolu mooy sabab loolu mooy junj loolu mooy yéene loolu mooy ndigalu Sëriñ Muntaxa mboole murit yi doon benn ci lépp luñ mën a doon ndax tool bi benn la muy toolub Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye kenn mënta liggéeyal Serigne Touba nag te ko ci bunt bi maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina loolu tax na nag tey jii ñu fas ànd ak yéen fii ci Touba Darou Minane lépp lu fi nekk rek ci ab liggéey aju ci ndigalu tëdd li ñun ànd ci ak yéen di ñaan daje ci ak ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci barkeep maam Cheikh Ibrahima Fall jàmbaaram ja la ilaha